na gan ñi fi ñëw tey te seen mbëj njëlbeen ñëwoon nañ fi comme niñ ko def tey muy ay journaliste ñu ngi nii ñëwaat fi tey ngir nemee nemeekuwaat place bi ñu ngi ñaan yàlla seen mbootaay gi yàlla na ci yàlla def barke seen télévision bi yàlla na ci yàlla def barke yàlla na siiw yàlla na xam kattan yàlla na barke te yàlla ngeen ko jëriñoo te yàlla na jëriñ réew mi yàlla nay télévision boo xam ne dafay jokk ak bokk yàlla bu mu nekk télévision boo xam ne dafa indi xibaar boo xam ne day tasaare réew wala muy tasaare bokk yàlla na yàlla musal ci lu ñu wax rek lu ñu xam ne dafay rafetal yàlla na yàlla defal leen loolu yàlla musal leen ci ñoo xam ne kàddu gu yëkkati muy fitna luñ def muy fitna luñ bind muy fitna yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na yàlla defal loolu ñu ngi leen ko ñaanal te xéena leen ko te yaakaar ne loolu dana nangu ñu ngi ñaanal nag mi fi teew ñëpp di ñaan yàlla yàlla nangul مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق